Maguette Ndong maa ngi lay nuyu. Maguette nga nekk secrétaire général adjoint bu SYNPICS bokk ci coordination des associations de presse d'abord ñu lay laaj en tant que journaliste naka nga gisee ñu teg loxo suñu naatango bi di Pape Alé Niang waaw ñun de euh, mu am ba léegi ñu ngi ne Pape Alé yóbbu nañ ko prison tëj nañ ko dañ koy loo xam dañ koy naxal baax a baax et puis def nañ nag tout pour que loolu bañ am waaye ñun bon donc nañ rek ne finalement juge bi téye na ko mu ngi prison loolu nag ñun euh, dañ yaakaar ne mënoon nañ ko éviter en plus liñ koy incriminer li nga xam ne moom la ñuy wax ne moom la def loolu yëpp nit man na ci voilà man nañ ci werante man nañ ci wax donc Pape Alé <coughs> deful dara loo nga xam ne gis ñu fii yeneen journaliste yi di di ko def donc li mu def pour ñun garaawul ba nga xam ne war na man nañ ko mën a yóbbu prison donc euh, nee nañ dafa jël ay information yoo xam ne secret défense la dafay euh, xaw a menacer sécurité dëkk bi kenn xamul loolu lañ wax mais ñu yaakaar ne lépp li nga xam ne def na dugal na wax na ko mu fekkoon na Baldé bu yàgg mu nekkoon sax sur la place publique mu nekkoon tamit boo ko ci réseaux sociaux donc pourquoi tey jii ñu a jël Pape Alé Niang ne ko yow mii da ngay waay jël waay prison ñeneen ñi nga xam ne def nañ ko rek avant moom pourquoi loolu donc loolu yëpp ay question loo xam mën nañ ko si pour dire que vraiment Pape Alé li ñu koy li ñu ko woon et que laaj vraiment sa libération immédiate Euh, kon looloo tax ngeen ne nañu ko euh, libéré waa CAP di coordination des associations de presse euh, tey jii lan mooy seen plan d'action lan ngeen fas yéene def pour Pape Alé a génn ci kaso bi ay marche ay sitting lan ngeen fas yéene def exactement waaw démb daanaka def nañ benn réunion d'urgence ñun ñëpp naan ko association yi nga xam ne ñoo bokk ci CAP yëpp mooy ay SYNPICS ak ay CORED ak ay euh, convention des jeunes de porteur ak appel ak ñooñu ñëpp ñëwoon nañ ko ak yeneen journalistes yoo xam ne vraiment bi ñu déggee mbir mi dañoo daw rek daal di ñëw bokk ci réunion bi ñoom tamit di wax ci seen xalaat quoi waaye bi ñu paree ci réunion boobu daanaka tënk nañ benn euh, plan d'action boo xam ne daanaka si ñaar fukk ñaari point la waaye li ci am solo mooy marché bi nga xam ne moom la ñu war a organiser incha allah vendredi prochain mooy àjjuma euh, place Lobelis lay commencé ñëw ba BCAO incha allah dañuy laaj nag journaliste yëpp ñi nga xam ne bu Sénégal. képp koo xam ne yaa ngi doon def dara jour jour boobu heure boobu boo mënee ñëw nga ñëw jëmal bés boobu ndaxte aussi tamit bu ñu fàtte ni suñu confrère la lañ lañ téye fi mu nekk nii te ku nekk mënoon nga nekk ci place am donc dañ dañuy laaj ñëpp ñu ñëw technicien journaliste professionnel des média ak société civile ñëpp ñu mën ku ci mën jàpp daal nga ñëw jàpp ci waaye avant loolu je pense que ci biir semaine bi incha allah am na yeneen manifestation xam ne dañ koy def activité yoo xam ne vraiment dañ ko def mooy cité bi ñu war def euh, maison de la presse incha allah mercredi prochain ensuite nañ bo waxtaan ak avocat Pape Alé ñoom tam ñu jéem a xool na ñuy harmoniser notre euh, kii notre défense par rapport à cela donc yooyu yëpp def nañ ko dinañ ko def pour mën a def en euh, benn tollé sur l'arrestation bi nga xam ne moom moom la Pape Alé moom moom moom def ci Pape Alé Niang et ñun li ñuy laaj rek lu yomb la xam ne Pape Alé tey jii dafa rek ñu bi kanam Euh, Maguette Ndong est-ce que tamit Pape ale li muy def parce que euh, ñu ñeen a ngi koy défendre parce que taskatu xabaar la euh, solidarité ndax fi mu daal di bokk mais est-ce que Pape Alé Niang fi ñu toll ni li muy def génnul ci cadre journalisme bu yàgg a yàgg parce que dañu gis ni dafa far carrément ci Ousmane Sonko même officiellement bu dee waxu ko mais ci ay jëfam ci ay waxam loolu la firndeel proximité bi mu am ak opposant bi di Ousmane Sonko est-ce loolu génnul ci cadre euh, journalisme. waaw xam nga proximité euh, Pape Alé ak Ousmane Sonko man duma ci sori tellement ndaxte euh, am na amul moom moo xam usman Sonko moo xam waaye daal li man mën a jàpp mooy Pape Alé kenn mën du wax ne du journaliste journaliste la dëgg la nag képp ki nekk ci métier di ci liggéey parfois yaay def erreur peut-être sa Pape Alé ñaar ci démarche am na loo xam ne lépp nepp c'est pas que waa du lépp moom moo baax mën nañu wax waaye lépp ba lépp euh, mën na bañ baax mais aussi tam mu def erreur mais ñun li nga xam ne moo ñu war en tant que euh, syndicat mi nga xam ne moo fi toogal journaliste Sénégal yëpp moo ñu taxaw ko te kii tey tey booy xool tànk yooyu lañ lañ lañ lañ amee taxaw Pape Alé ba mu mën a génn fii en tout cas ki génn prison dem këram loolu nag dañ ci xar suñu tànk tubéy te it dañuy euh, def day wax alhamdulilah ba bañ ko mbokkee ak yenn association yëpp yi nga xam ne association de la presse la nekk Sénégal ñoom ñëpp dañoo manko fu nekk def benn say pour que exiger en tout cas libération Pape Alé Niang te côté boobu wax dëgg ñun bëgguñu si teg libération boobu amul su ma nekk nii. donc euh, Ndong Reporters sans frontières nekk beneen kuréel euh, gi a euh, dajale ay taskatu xabaar ñoom tamit di soutenir Pape Alé Niang di wax comme li ngeen wax ne Pape Alé Niang génn ci kaso bi wala sax placeu taskatu xabaar du ci kaso bi kon taskatu xabaar moom dafa bokkul ak yeneen justiciable yi waaw wala déet. déet waxuñu loolu ñun ba léegi waxuñu ne journaliste moom daanaka benn citoyen la voilà à part boo xam ne ay ay règle à part la am non ñun da def lu la neex daal doo tëdd kaso. no waxuñu loolu ba léegi ba léegi ñun waxuñu loolu mm. d'autant plus que avant moom avant moom mm-hmm. am na ñeneen journaliste yoo xam ne tëdd nañ kaso ku mel ni Madiambal Diagne ba xool tëdd na kaso waaw après mobilisation am mu génn mais dañ jàpp ne journaliste ba nga xam ne liñ ko incriminé en cas de euh, en tout cas ko incriminé nekkul lu nga xam ne ay motif valable la ñun dañu war a jóg taxaw euh, jàppale ko ba yàlla def mu génn waaw loolu moo tax fi mu nekk ñun ñëpp ñu mànkoo ne lii buñ ko bàyyi mu jàll buñ ko bàyyi mu jàll daana ko danger lay nekk tamit suñu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ndaxte lii mën na mën mën mën mën na dal keneen ci ñun wala ñeneen ci ñun. donc pour parer à tout ça ñun dañuy yaakaar def ne l'affaire Pape Alé Niang dafa nekk benn déclic boo xam ne ñun ñëpp dañu war a taxaw fu mu nekk nii pour exiger sa sa libération loolu daal la ñuy lañ ci taxaw mais ba léegi waxuñu ne journaliste il est au-dessus des lois loin de là ñun gëmuñu loolu xamuñu loolu mos ko waxee. Euh, beneen laaj aussi euh, mais Pape Alé si li tax ñu jàpp ko dañu wax ne ay documents yu confidentiel la génne euh, li mu génne secret de défense la te ku nekk xam nga lu suñu waxee secret de défense armée nekk loo xam ne dafa dafa dafa la ñuy wax la grande muette seen dara du génn Pape mm-hmm. Alé dugg seen biir di génne yenn information yi di ko fësal est-ce que tamit si étique ak déontologie ak li ñu jàng taskatu xabaar yi école que journaliste bu baax dëgg war na génne yenn information yi même su fekkente ni jot na ko dëgg la loolu moom information à chaque fois bu ko journaliste jotee da koy xool xoolaat ko def ay vérification nécessaire avant mu ci wax wala mu ci mu koy génn loolu moom dafa nekk benn principe boo xam ne képp ku di am une bonne formation yaakaar naa war ko fàtte à chaque fois loolu ngay teg comme bandulaire pour mën a doxal sa sa liggéey waaw euh, Pape Alé Niang nag liñ ci wax mooy voilà li mu li li mu génn li mu wax dafay menacer la sécurité même du pays loolu lañu wax te ñun dañ ne moom avant mu koy génn am ñeneen ñoo xam ne génn nañ ko wala wax nañ ko mais ñooñu ba léegi kenn tegu leen euh, loxo loolu moo jaaxal maintenant moom mi nga xam ne mooy journaliste bi génn ko rek ñu ne ko noo war ko génne et bi jël rek jaar drap tëj mhm. loolu nag lañ mënta nangu ndaxte justice bu fi nekkee tamit dafa war a nekk. waaye waaye kon yéen xam ngeen ni Pape li mu génne waru ko génne. su fekkee respecté nañ étique ak déontologie. waaw xam nga ñun ñun ñun ñun dañ ne. dañ ne gis nga affaire Pape Alé Niang bi daf ñuy permettre pour que ñu rappeler à tous les journalistes li nga xam ne mooy les fondamentaux de ce métier. fondamentaux yi mooy lan à chaque fois bi nga xam ne yow jox nañ la information wala dégg nga information defal des recommandations defal les vérifications nécessaires ensuite avant loolu ñun tamit ay patriotes lañ mooy dëkk bi lépp li ko yëngal wala li ko jaxase li ko fi indi fitna moi je pense que warut a jóge ci journaliste yi te loolu nag li tax ñu koy fi ñu ñu ñu koy war a wane dëgg mooy ci def suñu liggéey ba mu gën a loolu moom dañ ciy laaj en tout cas tous les journalistes ñu gën a euh, en tout cas respecté seen liggéey et def ci gën a euh, professionnalisme ak rigueur ndaxte loolu sànq amul rek fi mu nekk nii day am ay gàllankoor ci métier bi et puis à chaque fois dañuy pointer du doigt journaliste ñun loolu la ñuy bañ fi mu nekk ndaxte ñaaka ne journaliste yi dañ ko dañu nekk benn élément ay éléments yi important ci dëkk bi et dañu baax it ci démocratie Sénégal. Hmm, fi ñu toll nii ñu transféré euh, Pape Alé euh, prison bu Sébikotane euh, yéen ngeen ko gisee. waaw mais loolu nag dañ koy rafetlu ah, ndaxte booy xool euh, lu mel ni ay yeneen prison yu nekk Ndakaaru ay Rebeuss ak ay Liberté 6 yoo xam ne c'est des prisons saturées ñu wax ne dëgg et puis tamit xaw a doy moo tax dem dem ba sax dégg nañ booy xool même sa famille sax bon xaw nañ sax euh, euh, d'accord loolu pour que ñu transférer ko parce que loolu moo indi mu jógee Ndakaaru daal di dem Sébikotane et puis Sébikotane tam ku ko xam dëgg prison bu bees la et moo gën a moderne li nga xam prison yi nekk Ndakaar donc yaakaar ne foofu moo nekk les meilleures conditions de détention pour Alé Niang waaye li am solo pour ñun rek mooy détention ou pas na génn kaso bi ñun loolu lañ gën a bëgg xeex boobu ci lañ jóg et puis voilà di ñaan nag ñëpp nag. tous les journalistes tous les techniciens et professionnels des médias ñu taxaw ci thème pour que loolu mën a aboutir incha allah. Euh, tey jii euh, dernière question Maguette Ndong boo doon wax ci wàllum euh, démocratie wàllum liberté liberté d'expression plutôt fii ci Sénégal est-ce que dañu am ay avancées wala dañu reculer bu fekkente ni ñu ngi teg loxo ay taskatu xabaar. waaw mais lii moom recul la ndaxte bu ñu demee ba nga xam ne ñun fàttewu nañ lu mel nii ndaxte fan yi passé bi ñuy waxtaanee ñun en tant que professionnel di waxtaan bon li ñu doon wax surtout agression ñu doon wax ay attaque waaye léegi lu ñu servir mooy euh, prison donc loolu boo ko gisee rek nga xam ne fi mu nekk nii am na benn recul boo xam ne def nañ ko ci euh, wàllu vraiment liberté d'expression et puis voilà liberté de la presse donc ñun bëgguñu ko woon nii bëgguñu ko woon nii li ñu gënoon bëgg mooy fi ma nekk ni journaliste ñu bàyyi leen ñu def seen liggéey euh, et koo xam ne def na faute tamit ñu ñu recadré rek ñun loolu da que correct li mu nekk nii mooy la déontologie en tout cas soit respectée et moom dañuy tamit mu gën ci xar tànk tubéyam pour que journalistes yi def attention ko na mu gën a rafetee euh, Pape euh, wala plutôt Maguette Ndong maa ngi lay jaajëfal. merci beaucoup merci à vous. voilà may fàttali ni secrétaire général adjoint nga bu SYNPICS bokk tamit ci coordination des associations de presse. absolument merci.